dañoo ñëw tey di wër dëkk bi li ko waral nag mooy loolu ñuy wax bouche d'incendie maanaam loolu nga xam ni fa la ñuy jëlee ndox bu bu bu lakk amee dañoo jàppanoon ni département de Mbour yëpp benn rek fi amoon Mbour nag njëkkoon nañu am benn waaye euh, ba mu yàqoo yàgg na mais département bi yëpp bu ñu bëggee ndox dañ daan dem ba Saly ci foo xam ni borne boo xam ni kooku privé la woon léegi nag bi ñu toogee waxtaan ci ak préfet waxtaan ci ak conseil municipal waxtaan ci ak sapeur pompier ah mu recommandé ñu ak euh, le commandant Diop pour vraiment ñu jublu ci pour ñu defar fi ay bornes d'incendie ah, parce que bi ñu ko defee aussi ñaar lañ doon wax wala ñett waaye ñun tamit ñu ne nañ ci def juróom te juróom yi sax doyul dëkk bu toll ni Mbour dañoo defagum juróom rek di xaar comme gis ngeen dëkk bi nu muy gën a yaatoo yaakaar naa danañ ci dolli yeneen li li nag boo gisee sax ñu di ko gën a def mooy marché bi yéen ñëpp xam ngeen marché Mbour ni mu bindoo. pour nga dugg fa rek problème la am na benn bés lakk am fi mais pour nga dugg ci biir marché bi problème la te bouche d'incendie yi aussi bi nekkoon ci booru marché bi pour nga egsi ci ci comme ni ma ko doon waxee ci bouche d'incendie bi rek problème la woon mais léegi di jël nañu ay disposition yoo xam ni bouche d'incendie yi dañu leen teg ci yoo xam ni gaa yi dañuy ñëw rek sar sarse euh, ndox dem fay kii ndax gis nañu marché bi dañ fay restaurateur ñu ngi ci biir te ay gaz la ñuy employé gis nañu ni électricité bi gañi mu mu len neex lañu koy jëlé day fekk ay ki jambour di passante électricité té xam nga lool yëpp worul day indi ay coupe circuit té day indi ay yo xamni jaadul marché pour nga dugg ci biir sax len neex lañuy lalé len neex lañuy def lool nak waxtaan nañ ci ak préfet waxtaan ci ak euh, service de sécurité yi té lool bu soobé yalla ak euh, ñi nga xam di jëp mën nañu koy jappalé mu jëgé fi ndax yag nañu indi sax

boo yaakaar nit ñii mën nañu ko euh, mën nañuy def liggéey bi mais buñ fa yàggee di liggéey ak ñooñu da ngay gis ñoo xam ne sax dañuy liggéey ba ngoon jot ñu yóbbu ñu lijjanti seen ndugg dem ñu bi te loolu dañoo fekk nañu ñu miin gaañi léegi nag moo tax ñun léegi suñu bopp ñun ñoo koy jëlal suñu bopp di ci taxaw ba bëccëg pour vraiment bu ñu leen dégager bi yoon ñu bàyyi mbedd mi bàyyi yoon am marché nag moo mel noonu. li ñuy def ba di ñu dellu si mooy fi mu nekk bu ci service yi jàppee. les services techniques booleeg mairie bi. ak préfet bu ñu paree rek léegi jaral nañu ñu recruter ay nit bàyyi leen foofu rek ñu taxaw bu ñu def leneen lu taxaw leen rek ku naralal nga jële ko. lii nag dañoo wate woon ci sunu budget 15 millions yoo xam ne moom la ñu yëkkati def ko ci te bu soobee yàlla kii di ñuy dañu watewaat presque lu toll noonu ñu defaat ko ci ndax lu mu gën a bari rek sécurité bi di gën a baax ci ci incendie yi.